abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ngeen di am xibaar. dal ak jàmm seen seen bii di FTTV Sénégal Chrétien Alassane Sall bokk ci candidat yi nga xam ne ne seen tur moom ci liste définitif bois conseil constitutionnel publié en ci réew mi di Sénégal kookee di Thierno Alassane Sall yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci date bi nga xam ne ne moom lañ war a jàpp di ci amalaat élection ci réew du Sénégal. si li ni mel qui di Thierno Alassane Sall ne ñëpp ci opposition bi ñoo ngi le 3 wala le 10 mars bi ñu jëm ngir loolee daal di nekk date bi nga xam ne ne moom lañ war a élection ci réew mi Sénégal waaye mom ne lu mu gis moom mooy que ne. nañ xaar ba ginnaaw le 2 avril maanaam bés bi nga xam ne ne si la kii président Macky Sall di jeexale tàkk ci réew mii di Sénégal mandaam ñuy soog a daal di toog nag daal di waxtaan ci date bi nga xam ne ne moom lañ war a jàpp daal di ci amal élection ci réew mii di Sénégal ndax moom lu mu jàpp moom mooy que ne tant que kii président Macky Sall ci bopp réew mi ab ministre de l' intérieur am di organiser élection yi. kooku di président Macky Sall mën naa amal ay njuuj njaaj ba tey daal di koy jëmale ci élection yooyee ñu nama organiser ci réew mii di Sénégal ne ngir ñu éviter li mel nag dañ xaar ba kii di président Macky Sall mandaam daal di jeex tàkk ci réew mi di Sénégal bu ko defee waa opposition bi daal di toog daal di waxtaan daal di jàpp date bi nga xam ne ne moom la ñu war a amalaat ay élection ci réew mii di Sénégal ne bu ñu amalee li ni mel kon ki di président Macky Sall du amati pouvoir daldi di dugal loxoom ci processus électoral bi du amati pouvoir daldi di wañ wala mu daal di amal ay njuuj njaaj ko ci élection yi nama organisé ci réew mi di Sénégal kàddu yu ni mel le ki di Thierno Alassane Sall daal di yëkkati di koy jëmale ci tat bi wara amal élection yi ci réew mi di Sénégal. abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes ça se ne ngeen am